waaw Aïcha vraiment dinaa rafetlu aussi question bi nga ma posé parce que ñëwoon naa fii boo xoolee y a de cela six mois tey waat nga may kon xam nga ni kon suñu problème résoudre guñ ko ba léegi ñu tey képp koo xam ne si dëru nga yëngu rawatina cag-cag yaa ngi am lu la metti sa xol yaa ngi am loo xam ne tey mënu la mënoo ko am foo koy jooyee yaa ngi am loo xam ni tey yow miy nekk boroom kër di yëngu si cag-cag di si daan sa dool di si joxe dépense tey ñoo ngi lay lor te ñoom xamuñu exactement nit ki lan lay dund ci këram ñoom aussi xamuñu nit ki ba xam bu xëyee dina lekk wala dina naan xamuñu nit ki lu mu fanaanoo nga xëy génne ay articles yoo xam ne tey boo ko defee cag-cag bi déjà day impacté wu waxuma la cag-cag bi mais li nekk si ginnaaw cag-cag bi pneumaticien bi mécanicien bi yow mi nekk sa bureau war a xiif war a yoox yónnee ñu indi la lekk yow mi créé sa entreprise tuddee ko restaurant di jaay jox cag-cag yóbbul yow mi def vente en ligne loolu yëpp tey sóoraale wuñ ko ñoo ñuy ñoo ngi ñuy sonal te xamuñu ko. Mm. ñoo ñuy lor te ñoom xamuñu ko. nañu bàyyi xel jeunesse bi bu ñu nee développement jeunesse moo tax les neuf domaines de compétence transférés par les collectivités locales jeunesse def ci bokk. Mm-hmm. ñu jël ko jox ko collectivités locales yi pour collectivités locale yi gérer seeni jeunes man leen jox ay emploi article 1 du dafa ni nit ki boo ko joxee liggéey ba pare da koy protéger accompagner ko. dëgg la te le droit au travail est un droit sacré pour toute tey ñoom loolu yëpp dañ ko jël lem sànni fële ndax la ndax seen intérêt personnel. loo xam ne ni tey suñu yoon nekkul. est-ce que intérêt personnel la parce que tey liy xew ci réew mi ñi yor deux roues yi dañ gis da ngay gis ab ndaw yéeg ci deux dem ba fu neex jël jël jël pneu taal waa mu jël dara sotti essence lakk. est-ce que loolu intérêt personnel la wala intérêt réew mi est-ce que liñ koy li ñuy def nekkul pour vraiment euh, préserver ñi nga xamante ni ñoo di askan bi waa xam nga ñoom tey mooy yi leen yàlla jox man joxu ñu ma ko man Alioune Fall mooy yi leen yàlla jox tey kenn amu ko ci réew ñoom ñoo ko am tey ñoom pour ñu protéger nit ñi sécuriser am nañu ay moyens yoo xam ni mën nañ ko jël adopté ko ci population bi mais pas dire que bu benn deux roues daw boo nee benn deux bu benn deux roues daw yaa ngi jël ñëpp def nañ ci benn saak mais àdduna lépp loo gis am na ñuy saboté am na ñu liggéey. Mm-hmm. métier bi ngay def am na ñu si nekk ñoo xam ne teguñu ko ci yoon ñiy gàmm ak ñuy raas bokkul man wax naa lii fu ne. bu ñu jël rek bëgg ñu def ay malfaiteur bu ñu jël bëgg ñu def ay agresseur wala ay yàqkat ñi am moto am papier complet nañ leen bàyyi ñu liggéey. d'accord ñi nga xam dañu am carte grise am permis am assurance nañ leen bàyyi ñu liggéey ndaw ñi nga xam dañu ne si réew mi daan seen doole ñoom ñoo wootee xëyu ndaw ñi kon nit ki boo ko joxutee liggéey mu créé liggéey war nga koo bàyyi mu liggéey. mais pas autant que nga naan ko bu liggéey parce que am benn projet bu xew boo xam ne nii xamuñu bi kañ lay jeex léegi kañ lay jeex. après nit nga toog këram du am lu mu lekk jeex na verdict bi moom la ñuy si ginnaaw lu ñu ne si nga ko yooyu man damaa tiit actuellement nii parce que sama xel dalul xamuñu xaw ma verdict bi tey lan la ñuy joxe bu ñu joxee loo xam ne c'est négatif vers la population nan la population di réagir lu ñu joxe la xam ne c'est positif vers Ousmane Sonko nan la ñu nan la ñu militant partisan Macky Sall di def c'est-à-dire nañu toog ñu waxtaan waxtaan rek mooy faj lépp